asalaamaaleykum samay xarit samay soppe samay doomu ndey ñu ñëwati pour waxtaan ak yéen wéccantewaat ay xalaat doon leen tewaat rek ci mbiru sëy ah ñu ñëw ak maam ba tey rek affaire maam affaire maam waaw ndax man na maam jàppee woon sëyam rek mu dëgër ma bëgg sama xaritu jéeg ñu bëgg seen jëkkër yi bëgg sa jëkkër nekk sa xarit macha allah lu mu xam wax la lu mu am may la di déeyoog yow foo toll. ah mooy pour toujours nag pour toujours a ngi de waaw ñàkk kaa am wóorut ku ne bëgg naa xaritoog sa xarit de sa chéri de sa nijaay de sa papa chéri de laay lay la laa ñëw leen pour toujours nii ngeen ut ko pour toujours nii xariti jéeg ji la ñi ka ñam de waxatuñu dara xanaa ñi ka ñamagul noo ma jaaxal ma bëgg na ngeen ñëw ah ñu weccoo ci pour toujours bi ndax ku nekk bëgg nekk sa xaritu jëkkër ba kenn du si xaj kenn du si wax dara kenn du ci mën dara ni koy wekkee ko nag lu yomb la boo leen wootee rek ah ñi bëgg seen jëkkër laay waxal de ñi bëgg seen jëkkër di leen dey lépp di leen wax lépp du leen nëbb daraam daram daraam daraam du leen ump ah ñëw leen ñu weccoo ay baax baax ma wax leen pour toujours lu muy jëriñ ngeen xam xam nga mun na yoo xam ne kenn du ko détaillé kenn du ko détaillé nii wante junj doy na borom xel maa ngi leen di déglu samay doomu ndey samay xarit samay genn wàllu bopp